indil leen ay garab yu mucc ayib képp koo xamante ni da ngaa yor jàngoro yi nga xamante ni moom laay bëgg lim dawal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré indi na ci ay garab yoo xamante ni garab original la mucc ayib képp ko ko jëfandikoo insha allah da nga daal di tàggoog mbooleem jàngoro boo xamante ni nekkoon na sa yaram hémorroïde bu fekkee da nga koo yor demal nga seeti ko bu ne da ngaa yor bolotement dawal dem si gaaw bul ko wàcce néew kattan nag amu ca morom képp kum ci jàppantet ba njox la ay garabam nga jëfandikoo ko insha allah kattan force ngay yor accord euh, gaaw a daanu nag moo ca man képp koo xamante nii da ngay gaaw a daanu demal nga seeti ko bu la joxee garabam ba nga jëfandikoo ko mën ngaa dox lu mat juróom euh, juróom benn fukki minute ci yoon wi te doo doo àgg suuf euh, koo xamante ni dafa yor feebar pratiquement général demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré ulcère moo ca man wala li nga xamante nii moom la ñuy wax tension képp koo xamante ni tension dafa yéeg wala mu wàcc demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane xamante ni bu la ko joxee rek nga daal di tàggoog loolu nga xamante ni mooy sa jàngoro ndoxum siti nag moo ca man siti bu feeñ bi ak bu nëbb bi jabet amut ci moroom képp koo xamante ni dangaa yor hémorroïde bi nëbb bi feeñ yépp demal nga seeti ko mbooleem jafe-jafe yaram yi boo ci am rek demal jàkkaarloog docteur Cheikh Ousmane am na ay garab yoo xamante ni bu la ko jëfee ba nga jëfandikoo ko incha allah da nga daal di tàggoog mbooleem jàngoro yooyu waaye la gën a doy waar te gën a neexati ñëwagut muy jaaro bi nga xamante ni moo lëmbi àddina tasaare réew mi képp koo xamante ni dangaa bëgg ci jaaro yi bi woowal docteur Cheikh Touré docteur Ousmane Touré nag numéro téléphone am la 75 da ngay def deux cent cinquante cinquante cinq cinq deux cent cinquante cinq cinquante vingt cinq jaaro yi nag day dox ci muslaay day dox ci wërsëg day dox ci képp koo xamante ni da ngaa yor eh, loxo bu bënn maanaam loo yor sa loxo du toog demal nga seeti ko bu dee bayre it daa jaaro bi da cay dox day dox ci ubbeeku mboolem képp koo xamante ni soxla nga ko rek woo ko ci numéro de téléphone boobu. darbu aja adina bum la tax a bew àddina bum tax nga jaay sa ngor àddina bum la tax a bew àddina bum tax nga ngor àddina bum nga jaay sa ngor loo fi mënta am bisa ngi ñëw mu jeex koo fi mënta gëm bisa ngi ñëw mu dem kon nag aadina bum la daaga bew aadina bum danga jaay zangoor aadina bum la daaga bew aadina bum danga jaay fiilo bi mënta am bisa ngi ñaw mu jeex koo fi mënta bisa ngi ñaw mu dem kon nag adina bum la dara bew adina bum tax nga jaay sa ngor ak di jaajëfal suñu mbër Moustapha si ndam li mu jël subxaana man rabna moo ko def muy sagu Sénégal ñii di xaatim ñii di gasul ñii di def ngir fexe lu ko lor ulama una ci lu xam ak cofeel ci sayidi muraan mag ñu baax ñi gëm nañu gi ndaw ñu baax ñi gëm nañu gi ko si woolu ndaw ko si xel mustafa saba yàlla fal suñu ruuy fu la neex jëmel yal na ya fay la sa joon fiñ ñi jëlee si yow fiñ ñi andee la sa joon loolu tax ma fent saar jël na baayam aj ko si kaw ku ne ñaan na amoro baax na gebe dafay digle sayida muureen la tatak wala شيء إنك ميت الله أكبر جل جلاله عز جمال الله أكبر سيد مورلان جود بديغلا سيد مور لا تتكبر لست بشيء إنك ميت dal na dara na dara jooy na tumuranke dal na dara buñ ne ngente buñ ne ceetal buñ ne yal na daarang ñu waawi daara innaka amil ñu waawi daara innaka amil ñu waawi daara ay daara jooy na sumurake yal na daarang ay daara jooy na sumurake yal na daarang ñu juwooy daara ay daara jooy na tumurange dal na daara rabbi atakarra innani wa du'ai hagazati lun muada usabahan walirabi karab tingan Agada bulu adab usabahan Senegal Ni di khatim ni di gasul ni di def ngir fexelu ko lor ulamaawuna ci lu xam ak mu cofeel si sayidi mag ñu baax ñi gëm nañu kii ndaw ñu baax ñi gëm nañu kii ko si ndaw ko si Mustafa sa baaya la fal suñu ruuy nee jëmel yal fi ñi jëlee si yow fi ñi andee ko gën jël na baayam at ko si kaw ku na ñaan nga am li nga am ku na ñaan nga jaw si sa gaal mufsidiina mooy suñu gaal gaal gi fii texel Sénégal mawlaaya Seydi Taba yaa ñu doy si yaasin jaal allah allah huwa rabbul alamin ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne ilallahi wahdahu yanaalul maqaam